daleen ak jàmm ñu ñëwaat ak yéen ci mbirum Marème Diagne di xale bu jigéen bi ñu faat samedi gi ñu génn ca Thiès tey nag ki ñu leen di xamleel mooy boroom këram di wuyoo ci turu Cheikh fay te ay atam toll ci 66 ans moom Cheikh Faye doom la ci général Waly Faye mi nga xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci réewum Sénégal ndax nekkoon na commandant bu siiw loolu bu gendarmerie nationale ba pare nekkoon directeur de la justice militaire doomam ji di Cheikh fay nag nekkoon borom këru Marème Diagne moom mu ngi màggee ca caserne Samba Diallo ba nekk ca Colobane bi mu amee fukki at ak juróom képp ci la daal di quitté réewum Sénégal ngir fas yéene dem foofee ca Europe bi mu amee 18 ans Cheikh Faye daal di dellu fii ci Sénégal ngir amal service militaire am ca Dakar Bango ba nekk ca Saint-Louis mu bokkoon ca contingent parachute bu atum 1972 ginnaaw service militaire bi Cheikh Faye daal di quitté waat Sénégal ngir fas yéene dem Europe ngir moodu moodu ji fa parcours nag wuute lool ak parcours Assane Gueye mi nga xamante ni moom moo faat jabaram ji di wuyoo ci turu Marème Diagne Assane Gueye nag moom jot na am a passé carcéral ndax mas nañ koo tëj lu toll ci ñaari weer kaso ginnaaw ba mu sàcc woon ab ordinateur portable loolu le mi ngi ko xamle ginnaaw bi mu doon jàkkaarloo ak enquêteurs yi. nekkoon na marchand ambulant diggante mbuur ak Thiès la doon jàbbante ngir jaay ay marchandises am waaye mu mel ni yamut woon ca njaay moomee ndax da cee boole woon ak luubal loolu juraloon ko ba ñu jugé woon ko tëjoon ko ñaari weeri kaso. foofee ca mag bu Cees ci fàttali nag Assane Gueye mi nga xamante ni moo faat kii di Marème Diagne mu ngi bàyyeekoo ca Maroc ngir fas yéene woon laaj si di Marème Diagne 3 millions yu mu ko doon yónnee loolu ginnaaw bi Marème Diagne daal di amee jëkkër bu dul moom Assane Gueye nag avant muy def jëf ju ñaaw ji jot na woo téléphone jëkkëru Marème Diagne di Cheikh Faye doon ko xamal kat ni kii di Marème Diagne daf koo yoreel xaalis bu toll ci 3 millions waaye kii di Cheikh Faye nekk boroom këru Marème Diagne ba ñu ko ko woon a fay waaye daf ko doon laaj ay preuve yoo xamante ni wane na ni Assane dafa yónnee 3 millions kii di kan da doon mbubboo xaalis boobu daf ko doon taafentaloo rek li ko yitteloon dëgg-dëgg moo di faat bakkanu Marème Diagne Marème Diagne nag jébal nañ ko suñu boroom démb ci talaate ji ca armée di guy texe ya nekk ca quartier Madina Fall ci teewaayu boroom këram bi joge ca Espagne Cheikh fay ngir rendre ko dernier hommage bu ñu sukkandikoo nag ci seex di boroom këram kii di Marème Diagne nekkoon na jigéen boo xamante ni exemplaire la woon royukaay la woon déggaloon na ko moom Cheikh Faye

fi nii man yaayam ci wax xam sax ak beneen nijaayam la xam ay yi dañoo taxaw polis ñu wax ak benn affaire man bu ma ñëwati si kër gi bu ma ko woote téléphone ah fu ma ko romb sax bu ma ko xoolati man loolu noonu nañ ma ko mais man nee naa leen man nee naa sama xol man su ma bëggee def dara yaa xanaa yàlla yàlla suñu borom mooy tax du ma def dara man daal dama lay ñaan daal su fekkee mën nañ ma fay sama xaalis yow nga jàpp si parce que laaj nga ma tey loo si mën a jàppee pour ma jot sama xaalis wa ilaa tamit ñaari solution ma jot sama xaalis wa ilaa su ma ko mënul jot nga waxuma man mënuñu laa fay affaire yooyu loolu laa bëgg daal instant yi tontu parce que man tamit li ma bëgg a def bis ma ko defee tamit ah nga métti de dem nañ police ñi may menacé ñi ma bur wooti madame Diagne bul demati seen kër ah, foo ko gisee bu ko bu ko xoolati affaire parce que police tamit deful liggéeyam bu mu war a def war na ma xam ni man ñoom sa liir nañu ay vocalam war nañu xam ni kon kii dennal jot sama xaalis waaye dañu ma lan moo lay wan ni la yow dañ nga ko envoyé xaalis ma ne ko man moom daf ma leen ni ma papaam def leen liggéey ak papa ji ah, parce que papa ji entrepreneur la papa ji di ko jox ay xaalis bu bëri bu koy dégg dégg si compte am confiance la ñu amoon maa ngi xam nga ko defal cinq ans mosoo leen am ay jafe-jafe xaalis xëy na wóolute ba moo taxaw wóolute wóolu ko moo taxaw moo tax ma koy denc sama xaalis instant bi sama 3 millions 40 mille francs la ma ameel nag man nag yaayam yaayam ci boppam façon teraanga mu nekk defal naa façon teraanga mu nekk defal naa yaayam moom moo mën a ñëw teg ba may def li yaayam di ma jël moom Marème Diagne di ma yóbbu si yoon ci ànd ak seen benn nijaay mais kon nag dama damaa xamatul essayé ban àdduna la ñu nekk man nag soo gisee ma lay vocal nii dama lay wax benn affaire daal yow essayé bi daal sa jabar su fekkee mën nga a fayal xaalis wa ilaa nga fayal ko parce que man tamit sa doom laa te dama nekkoon ci àll bi di liggéey xam nga bu baax immigration la muy daj maa ngi nii dërëm yoratuma ko dërëm yoratuma ko xaalis ba moo tax ma ñëw Maroc moo ñëw Sénégal instant soo gisee àdduna léegi léegi sëy léegi intérêt daal la ñuy sëyee intérêt la soo amee alal léegi mën nañ la sëyee sëyal soo amul alal comme sama genre di taxalaat is la ah ñu xool ku la gën a am alal ñu ànd ak moom. mais daal li may mën a wax daal instant bii yow daal loo ci mën def ñu jël sa batuwaay soo fay sama xaalis nga fay ma sama xaalis. su fekkee daal mënoo mënuma jot sama xaalis man tamit ah instant bi yoon jeexul de yoon jeexul de te ndaw laa nag instant nag lépp loo xamante ni dama kaa def dama kaa def xëy tamit mu doon loo xamante ni dama ko def tamit ay problème tamit man teel laa leen wax sama bopp parce que moom dafa dem police ni man wane ay vocal dama ko doon menacé pour rey ko man nee leen waa police man menacé naa ko mais dama juum moom moo tax instant bi nii àdduna dafa doy waar léegi dañoo nekk si jamono joo xamante ni léegi instant dañuy bàyyi ba problème am ba dara am ci ñun suma ma yëgoon damay bañ nag affaire bi ay retour yi ci am daal damay bañ ay retour yi am instant bi daal li ci mën am yow daal jàppal ni wutal xaalis nga fay ma wala suwaat ñu xool na la ñuy def la laa amoon pour wax na daal instant. naqar la ñu am ndax dañu boom suñu doom naqar yi ñu trop. te xale bi nekkoon xale boo xam ne euh, mën nañ ni kenn la ci woon ci doom yi ba tax na metit bi nu am mënuñu ko boole ak di leen am lenn lu ñuy wax ku nangoo liggéey la ku dégg sama ndigal la ku nangoo jaamu yàlla la amoon naa ci am naa ci moom confiance ba fii may waxee ak yow confiance bi du mas a deñ ci moom man entrepreneur laa damay jël ay travaux yore ay liggéeyu jàmbor yor di yor alalu jàmbor waaye sama bopp sax doyuma ci sama alal moom moo ma gën a doy ci sama alal fépp fu doom doon féete baay mareem féete na ma fu ko raw ba tax na mbir mi amee tamit ak détails yi may dégg ak wax yi may dégg ak yooyu yëpp Euh, duma ci mën a tontu ndax xam naa mareem xam gu wér xam goo xam ni mareem jubadiwul bokkul fu jubadi te du masa a jubadi bu ma tàggu woon tey tukki fu sori ak lu mu sori sori Marème njub laa xam ci moom te xam naa ne njub la fay nekk ba ba muy ñibbisi te mësul génn fii ci sama wet lu dul dafa dem école ñëwaat ci kër gi voilà Marème daal euh, mën naa ni kenn la woon ci man mënuma ñàkk sama doom ba di di saalit wala may wax wax ñaaw walla may tontonte ay xuloo walla yu deme naka noonu waaye leen daal bëgg naa ko maa ngi koy sàkku euh, la justice soit faite ma sañoon lépp loo xam ne sanction la bu war ci képp ku rey doomu aadama nañ ko def mosuma ko gis xanaa bi lii amee laa ko gis voilà ñëpp mosuma ko gis xaw ma ko